1905 88 628 1905 mbokk yi adat dafa am lim génne tur boo noppee nag wàcce tartiilu wàcce rek dafa am tartib tar tar tar tartib tartib laa bëgg wax tartib bi ñuy wàccee tartib bi ñuy wàccee dafa am booy xool day ëppee ci wetu bu fekkee yow mi bind la ci sa wetu góos lay ëppee waaye dafay dafa yem képp ci sa wetu droite da ciy yem képp yow mi bind saa bu ëppee ci wetu droite gi rek soo wàccee sa wàcce du baax maanaam day ëpp wala mu manqué kon boo dee wàccee di kalkin sa wetu gauche ci lay ëppee ci lay ëppee bu ko defee wetu droite gi day yem tey boo bindoon 40 bind 60 ci kan ci suufam ñaari sero yi dañuy tolloo 4 bi ak 6 bi dañuy tolloo nga bind 80 bu boobaa sero bi day tolloog sero yi 8 bi day tolloog 4 ak 6 nga ñëw ci 10 séro yi tolloo nga ñëw ci 4 6 8 1 nga bind ko ci suufam léegi nag soo wàccee doo juum da ngay daal di am tout zéro tout zéro ci benn côté droite bi da ngay am ay zéro nga daal di ñëw ci 4 plus 6 nga am 10 10 plus 8 18 18 plus 1 19 nga daal di wàcc sa 19 mbokk yi da ngay daal di am nag 190 moom ngay daal di taxaw moom ngay jàpp sa wàllu calcul 190 mbokk yi si tànk defoo noonu su fekkee da nga bëgg moyen itam. soo bindee 40 ci kaw bind 60 ci suuf da ngay daal di def moyen daal di def zéro moyen zéro zéro nga daal di loolu loolu 60 bi da nga def ci kaw da koy def ci kaw 40 bi nga def ko suuf toujours toujours lu niiw mënoo ca wàññi lu ko nga di ko calcul bu baax lu tuuti mënoo ca wàññi lu ko moom mënta nekk léegi soo defee 60 def 40 da ngay daal di wàññi zéro zéro zéro moyenne zéro zéro nga daal def 6 moyenne 4 mu des. suma yëpp xaa is nañ ni gis nga kon 20 moo ci des 20 moo ci daal des mbokk yi noonu ngay defee tar tartib bi tartib bi dafa am solo lool ci wàllu wàcce waaye tartib bi bu fekkee tegale ko mu nekk tartib yan su boobaa soo wàccee doo am la nga bëgg ndax dafa dafa nekkul tar tartib tubaarkàlla yooyu yëpp dafa bokk ci xeeti calcul dafa bokk ci lu àndaale ak lasraar asraar soo mënta calcul soo mënta wàññ su fekkee mënoo wàcce pilis mënoo wàcce moyen mënoo denc mënoo indi yooyu doo mën a doo mën a def asraar ndax xaatim yi boo ko dee liggéey fi mu ne day am jamu day am naaxis day am xismu yooyu yëpp biir xaatim yi da koy am day am day am taksir taksir itam da ciy am maanaam kusur boobu ñu doon wax léegi day am ci biir ci biir xaatim yi léegi nag su fekkee sa kalkin soriwut sa njàng soriwut su boobaa boo bëggee dagg xaatim du sotti soo bëggee def mawazin maanaam peese xool fii ak fii ndax ànd na wala fii ak ak fii ànd nañu wala kër yi ànd nañu wala ànduñu su boobaa itam doo mën a def mawazin bi yooyu yëpp da cee jara bàyyi xel bu baax ndax xaatim bal nga xam damm wala dammuwul danga koy def al wasnu soo ko defee wasnu ba noppi moo lay xamal ndax ànd na wala àndut loolu nag mënoo koo def te fekk jàngoo loolu euh, jumtukaayu jumtukaayu euh, isaab yooyu ñu waxoon léegi 88 628 19 05 88 628 81 08 Baye moom ngeen àndal 88 628 19 05 88 628 81 08 nga euh, xam-xam moom na la waykat ba waxoon rek moo ci am loo gën di avancé te nekk ci gëstum xam-xam dafa war di yokk ba la nga xaman ca démb sa wala ca daaw sa nga am ca loo ci mën a kuriseel sa bopp loolu tànk jotu rek tànk dabu rek sa xam-xam mi ngi taxaw ci benn place maanaam amul benn yokkute amul ci benn avancement te xam-xam gëstoo koy yokk da ngay tolloog nit ki benn kalaas nga génn moom génnut nga continuer sa xam-xam di gëstu moom mu continuer dem defi leneen kooko bis dana ñëw mu laaj la masala ndax xam-xam naka sëñ Tuubaa waxee ca naajul xadalaaj takraar moo koy maye maanaam di baamtu di baamtu di baamtu euh, la waykat ba waxoon ca jàpp naa ci ma maqaamatul xariiri bu ma juumut ci la nekk wa nabaha ba baxdama kaana naiman xatuufu duja masxuufatan bi tarannumi bakar su joa inda duwa fa tasaajamat duma al-ayni min kulli min kulli munsajimi aw kama xaala saayir fi kitaabi al-aziz bi maqaamatil xariiri wa ala kulli haal way moom noonu la ko tëggee wa ba sawxi ba'da ma kaana naa'iman xatuufu dujaa masruufatan bi taranum fekk dañ ci doon misaal benn way boo xam ne ci wala falaw xabla mabkaaha boo xoolee foofu yow mi koy jàng da ko fekk ca suuf ba ca sarxu ba mu di ko leeral mu ne dafa am way wu ko jiitu woon falaw xabla am na way wu ko jiitu woon mooy wa naba sawxi loolu lay dal ci képp koo xam ne rek fonk nga xam-xam te di ko muraajaat te di ko nafar foo man di toll danga nga gis loo xam ne xamoo ko woon waaye tànk rek la nga la nga gisoon démb loola ngay gis tey la nga gisoon démb loola ngay gis tey déedéet xam-xam démb noonu gis nga Seydina Ali karamala wacco dafa am lu wax ci suratu Fatiha nee na li ma ci xam lépp lépp su ma ko taalifoon dana fees dell ay gëléem maanaam safi ay gëléem dana ko fees te kon gis nga ne xam-xam kon day évoluer xam-xam day évoluer maanaam day gën a jëm kanam yow miy jàng sax li ngay baamtuwaat li ngay baamtuwaat bokkul ak la nga baamtuwaatut li ngay baamtu la nga cay xam du bokk ak la nga baamtuwaatut 88 628 19 05 foofu ngay jaar su ko defee boo dellusiwaatee rek des na la mën a leeralaat tubarkàlla jàpp naa boo demee ci beneen téere it day naan te wax naan ilqun ilqun xam-xam lay wax foofu naan ilqun ilqun garaat la nafisun la yuaari dafa foor kenn du ko able wanaa irun mu an kulli fannin ci jàpp naa ne ci benn téere la nekk difa melal xam-xam dem na ba naan fal yata sayid bi axtaaril mudraki ci gox yu sori yu sori yu sori nañ ko fa rëbbe ji loolu day wane ne rek yombut suñ tubaa day wax ne euh, faatihi kullak aatihi xaliilu faatihi xaliilahu maanaam soo ko joxee sa lépp suñ tubaa nee na dana la indil tuuteem am wala wala nam ko waxee ca nahjul xadalaat ci xam naa su ko defee ñu jéggal ñu si bu baax nam ko waxee mën naa wuuteeg loolu léegi dafay dafay wax rek maanaa bi li si jublu li ma si jublu mooy xam-xam da koy jox sa lépp mu jox la tuuti mu jox la tuuti loolu laa jublu indi maanaa bi rek donte yax ba itam mën nañ caa juum wala léet waaye bu boobaa borom xam-xam yi dañu ciy jéggal bu baax a baax a baax 88 628 19 cinq gis nga ilmu nujum moom itam noonu la deme wàllu xam-xamu ilmu nujum euh, jàpp naa ne euh, am na yónnent boo xam ne géej woon na ci xamal na ci lu ci bare bare ku ci mel yónnent yàlla Idris yónnent yàlla Idris aman na ci xam-xam bu bari tey ci bëccëg rek maa ngi liir benn phase boo xam ne euh, da ci indi ci xeeti xam-xam yooyu lu bare bare bari ci wàllu ilmu nujum ci niñ ko tartileeg yooyu ak aussi bi alxuraan ñëwee moom it ni mu ci jaarewaatee ci indiwaat ci ay point yu am solo yoo xam ne ci dundu nit ki la ak amuk nit ki ak yooyu yëpp so sosug doomu aadama beeg yooyu yëpp daf ko indi waaw kay jàpp naa boo demee ci alaatee alal insaani xiinun min addahri lam yakun sayan maskuran inaxalana al insaana min nutfatin amzaajin nabtali fajal na samian basiran gis nga yooyu yëpp dafay daal di ñëw samo ak basir dina ñëw ci tabiaat yi tabiaat yi su fekkee juumuma ci liir bi ma ko doon liir eh, basir bi jàpp naa ne moo nekk mooy nekk eh, hawaayu samo bi samo bi mooy nekk eh, turaabiyu wala samo bi mooy nekk Euh, naari yu samen ak basir yooyu def ko indiwaale indiwaale seeni i tabiat ci seen ci biir loolu nga gis ne alquran kon bayiwu dara maafara naa fi kitaabin min shayin bu ko alquran di wax gëstu la laaj gëstu waaye doo toll fa rek daal di tudd baatu maafara naa fi kitaabin min shayin daal di collaborer say loxo su boobaa doo xam dara ci li la alquran di wax foofu ak luñ bàyyi ak luñ baywut fekk na booba sax moom bayiwul dara luy dunduk doomu aadama bi lépp rek indi na ko luy ëllëgi tay luy luy tayam wala luy ëllëgam lépp rek andi na ko boo ci sukkandikoo rek yaakaar naa ne doo perte àdduna doo perte àlaxira moom alquranul karim 88 628 19 05 mbokk yi fi ngay jaar ñu seetal la sa tabiya 88 628 19 05 bu fekkee ab sëy la itam ñu xoolal la sëy bi xoolal la ñaar ñi déggoo nañ wala déggoowuñ wala yow ci sa jëmmi bopp la dem nga ba jaboot sax ba jaboot ci biir sëy bi itam xam sa sarax génn ko yaakaar naa am changement euh, loolu am na solo ndax lu baax moom mag bëgg na ko gone itam bëgg na ko te jàpp naa ne jafe-jafe yépp ñàkk xam sa sarax ci wàllu sëy sarax dafa am ñaar saraxu tabia wala sa ëpp na ko waaye fii ñuy waxee tey laa bëgg indi ñaari sarax muy saraxu tabia bi bokkul ak saraxu sëy bi saraxu tabia bi bokkul ak saraxu sëy bi bu dee saraxu tabia bi mën naa laa waxal li ci aju lépp bu fekkee saraxu sëy bi nag ci chiffre lay aju bu dee chiffre an bi boo calculé euh, Muhammad ak ya boo calculé Muhammad ak Roqiya wala nga calculé Muhammad ak Fatima wala Abdullahi ak Seynabu nga calculé seen adatu seeni tur ci ku ko mën a calculé laa waxuma koy làmbut wala kuy bind di yàq mbind mu leer ndax benn araf rek boo ko yàqee ci zaynabu wala nga yàq ko ci muhammad soo bindoon tey muhammad wala nga bind muhammad wala nga bind mu wala nga bind mu muhammad muhammad boo bindee beneen bu dul muhammad mooy xaaloong gis nga yooyu fi mu ne toujours danga nga am prononce saa boo ko prononcé wu rek boo ko doon imlaa nit ki du ko mën a bind yooyu nag soo ko calculé incha allahu tabaraka wa dafay leer bu la joxee chiffre un danaan la leer la bu la joxee chiffre deux danaan la leer la bu dee chiffre cinq dinaa la leer la bu dee chiffre sept mën na la leer la bu dee chiffre huit kazalika am na ñu ko leeral waaye ñu ko leeral dafa ëpp ci ñu ko lëndëmal moo tax ñun ci leeral bi lañuy sukk sundikoo am na nag yenn xeeti chiffre yoo xam ne dafay am ay ay ay ngànt dafay am ay sarax dafay am ay ndokk lu mel ni chiffre trois lu mel ni chiffre quatre lu mel ni chiffre six lu mel ni chiffre chiffre neuf yooyu moom am na ay ndokk ndogaan yu ci faral di nekk soo ko xàmmee wut nag mbokk yi ba takkaloo ci nit te génnewul sarax ba door a takk wala sax mi ngeeg soxnaam waaye waxu ko sarax ba itam daanaka ceet ko doo am benn solo tubaarkàlla ceer gi nag ci kaw day am ci suuf day am Baye Diagne Asrar moom ngeen àndal ci vingt 88 628 19 05 salaamaaleykum 88 628 19 05 mbokk mi foofu rek la foofu nga jaaroon léegi wala ñuy jëlaat beneen mbokk boo xam ne sax mi ngi déglu rajo bi te bëgg naa dugg su jaaree ci 88 628 19 05 ñu jël ko. misaal tey jii tey boo doon bind Zeynabu Zeynabu soo ko bindoon tey bari na kooku calcul loo wala kooku binduloo bu la ko calculé la dana ëpp wala mu yées gis nga bu mënoo ciy génn lu dul 69 calculu Zeynabu 69 saa boo ko ëppalee sa bind baaxut soo ko yéesalee sa bind baaxut dafa am turi cosaan yoo xam ne yooyu moom boo ci juumee rek ki ngay seetal sax war na koo xam war naa xam ne yow mii li nga ko wax du ne bu soo ci bëggee génne chiffre bu passé 69 juum nga juum nga ëppal wala manqué boo juumee da nga ëppal wala manqué kon 69 du manqué du ëpp 69 mënoo fexe ci Zeynabu ba manqué wala mu xanaa nga calculé ko abatasa bu boobaa nag moom yeneen lay doon aba abatasa nga ko calculé bu boobaa waaye kon ki ngay seetal da nga ko koy wax da nga koy wax ci li nga calculé bu fekkente ne euh, comme ñun ci abajada bi moo ëpp lu ñuy faral di seete ahlul asrar léegi nag bu dee abajada bi moom kooku 69 lay taxawee. Mouhamad day daal di ñëw moom nga ñëw da ngay daal di am quatre vingt quatre vingt douze saa boo ci bëggee génn lu ëpp quatre nga génn ci lu ko yées rek jàppal ne mënu mënoo mëtut mëtut wala manqué na Fatima. acca 88 628 19 05 ñu jël mbokk auditeur boobu mbokk mi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Baye Mouride na nga lay ziar. ñu ngi ziar kilifa gi. na nga ziar bu baax. alhamdulilah. alhamdulilah. baarakallah fiika damaa bëggoon ku ma seetal daal. mu mën a am sa numéro nag sa numéro normal. waaw. waaw nga dimbale ma ci. asi jëlal 77. 77. waaw. 183. 183. waaw. waaw. 68. Mhm. 68. waaw. Mhm. def 38 38 moo mujj. 68 38. waaw. Mhm. waaw incha allah loolu mooy numéro bi. d' accord. jërëjëf jërëjëf 88 628 19 05 mbokk mi ñu daal di àndaat ak beneen auditeur gis nga Fatima Fatima kooku day daal di taxawee 81 Fatima day taxawee 81 da daal di indi 9 daal di ñëw ci 40 dama lay wax rek tur yi tur yi nga xam ne dafa am cëslaay daal di ñëw ci 5 gis nga Fatima. wool keneen léegi léegi léegi nga laaj ko ni ma koy calculer rek du du bokk ak na koy calculer ni ma koy calculer du bokk ak koy calculer dafay daal di am fukk ak ñaar da daal am waaw wool Fatima léegi 5 6 7 8 waaw nga calcul nga calcule loo ko léegi bu boobaa Fatima dafay taxaw 135 mënoo ko ëppal su ëppee calcul ba baaxut bu yeesee calcul ba baaxut maa la ko wax loolu bu fekkee ci wóoroo fa abajada ci nga ko calculer. waaw bu fekkee ci doo fa ab tasa yi nag kooku moom beneen calcul la moom itam ba tey moo tax yow mi calcul boo gindee koo ci fan nga ma calculé la tasa bi la wala aba abajada bi bu dee aba abajada bi moom mënta passé 135 mënu koo yées 135 képp képp képp kenn mënu ko ëppal kenn mënu koo yéesal moom Fatima tubaarkàlla li ko indi itam nag am na ñoo xam ne tey boo ñëwoon tey ci Fatimatu walla ñëw ci Xadijatu wala ñu ñëw ci eh, yu niroog yooyu yu niroog yooyu foofu mbokk yi ab secret fi nekk secret fi nekk secret bi nekk boo ko xamul nag da nga daanu ci sa kalkin ndax tudd naa la nela faatimatu kalkinal ma ko kalkinal ma xadijatu waaw kalkinal ma faatimatu kalkinal ma xadijatu léegi nag nga ñëw yow saa boo kalkinee génne lu ëpp 35 sa kalkin baaxut soo kalkinee génne lu yées 35 sa kalkin baaxut ndax dafa am foo juum ci tur wi te xamoo ndax est-ce que jàng nga Euh, tanis tanis dafa am tanis dafa am ci arab euh, taskir dafa am ci arab taskir ak tanis nag soo ko xàmmeewut ci tur boo kalkinee daano ta ak taskir boo ko xàmmeewut ci tur te lu jar a xàmmee ci aw tur la asalaamaaleykum. waaleykum salaam maa woote sànq ni. Ah, waaw kilifa gi waaw. waaw seet bi mën naa doon léegi wala. waaw mën na doon léegi mën na nekk ci kaw mën na nekk ci suuf loo ci taamu rek ñu defal la ko. waaw du ci génn. bépp a baax yëpp a baax. Ah, ma woo la pour ci suuf waaw waaw daa pare naa la woo suuf. déedéet bàyyil ma jël la rek jarul coupé jarul coupé. d'accord. لا acca tubaarkale ñu xaarandi ko tuuti rek kilifa gi mu dellu siwaat xam naa kilifa la gu mag a mag a mag mën na dellu siwaat tubaarkale ñu ngi koy ñaanal bu baax jàmm ak xéwal dog gi du ci sunu coobare du ci sa coobare itam ñu ngi sàkku itam nga dellu siwaat lépp dana leer incha allah tabaraka wa taala kilifa gi 88 628 19 05 88 628 19 05 Baye Diagne Asrar moom ngeen àndal di jëlaat mbokk mi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. kilifa gi. waaw ah, ça va. ça va alhamdulilah. waaw ah, ci suuf laa bëggoon. ca 88 628 19 05 ñu jëlaat beneen auditeur mbokk yi foofu la rek euh, ci 88 628 19 05 88 628 19 05. ca mbokk yi su ko defee rek noonu ñu ko waxee rek danañ ñëw nag ci ay njëriñ lu baree baree bëri ndax xam ngeen ne tey jataayu asraar la dana ñëw si secret euh, karaafilu kooku ñaan la euh, ñu jël mbokk auditeur boobu 88 la ak 628 19 05 ñëwaguñ ci waaye danañ ci ñëw laawa danañ ci ñëw su ko defee nag kii wootee ñu jël ko 88 628 19 05 karaafilu lañ bëgg a waxtaanee tey téere bu am solo la xam naa duñ ko mën a jeexal tey waaye buñ xëyee itam. danañu continuer ci waxtaan woowu ndax bariwaana ku koy dégg te xamut lan mooy karaafiilu bariwaana sax nga nit ku yëngu ci asraar waaye xamut lan mooy karaafiilu karaafiilu nag bu njëkkoon sunu mag ñi doon nañ ci def njombte maanaam doon nañ ci def lu doy waar lu yéeme sax ci xeetu ñaan doon nañ ci def lu doy waar moo xam fay coow la moo xam ab sëy la lu mu mënut amut kooku téere la téere buñ tënkee noonu karaafiilu wala kulli alin mbokk yi danañ ci ñëw ci waxtaan xam naa nag moom dafa nekk téere spécial waaye dafa bari ñoo xam ne mën nañoo wax ne am nañ ko de soo tuddee baat bi baatu karafiidu dana am ñu la wax ne am nañ ko de waaye jàpp naa ne original bi kara karafiidu bu baax bi bu baax bi yombut maa ngi ko doon wax genn kilifa euh, genn kilifa boo xam ne ci dëkk yi dëkk yi la dëkk ci dëkk yi ñu nekk ci la dëkk Euh, waaye bi mu feeñaleeb karaafiiloom ak karaafiilu niñ ko tëre ca cosaan daa wute lool te fekk na moom kat nee na ma bi ma ci amee ñu baree bari ñi ngi fii boo leen laajoon tey karaafiilu boobu lañ yore bi ma ci amee rek lañ ci amee waaw kilifa gu dëggu la gu am xam-xam gu yaatu gu ñëpp xam waaye noonu la ko waxee nee na ñu baree baree bari tey boo leen laajoon tey karaafiilu bi ma amee moom lañ amee waaye sew sa karaafiilu bii maa ngi koy door a gis tey sama bëtëng ciy door a tegu tey ndax ne daf laa indil def laa indil programme bi ni ñu koy liggéeyee lépp dala ko indil su fekkee da bëgg commerce bu fekkee da ngaa bëgg mbooloo bu fekkee da ngaa bëgg soxna bu fekkee da bëgg place bu fekkee da bëgg doon njiit moom dala koo tegal benn par benn bu ci nekk mu liggéeyal la ko tegal la ko boo agsee da ngay copier rek def la ngay def boobu Carrefour yaakaar naa yombut bari waa ne gis naa nag man gis naa ci yu bari ndax damaa am yu bari li ma ci am ci Carrefour kenn xamul nu mu toll am naa boo xam ne benn phase rek la am na boo xam ne deux phases la am naa boo xam ne téere la bi ma naan la téere la nag boobu moom mooy original bi ndax jàpp naa ne jàpp naa ne ki ko ki ki ki ma ko amal ki ko am te ma jëlee ko ci moom nekkul loo xam ne nekkul loo xam ne euh, dama dama dama cee sonne wala yooyu déedéet xëy na sonne naa ci sax waaye tarbiya la mbirum tarbiya la mbirum tarbiya la ci waajur ba mu yëkkati jox la ci waajur woo xam ne itam dafa defoon xaarijiya xaarijiya foofee mu defoon xaarijiya fa la amee woon karaafiidu bi fa la ko amee woon waaye du fii sax du ci réew mi waaw ci bitti réew ca la amee woon karaafiidu bi karaafiidu boobu nag lépp a mat mbokk yi danaa la ko détaillé benn par benn su fekkee yaa ngi topp sama waxtaan dara du la cump dégg naa ku naan lan mooy karaafiilu ñaan la ñaan la ni téere bii ñuy wax kimiyaawu saada amee xam nga am na téere bu ñuy wax kimiyaawu saada am na téere bu ñuy wax sirul asrar loolu sax yenn ci xeeti wirde yi ci la bokk sirul asrar am na it bu ñuy wax kunuusu kunuusu nangam asraru kunuus wala wala kama am na itam bu ñuy wax euh, yeneen ak yeneen yeneen tur yooyu ni ñu amee noonu la karaafiiru amee moom it yow mi laaj lan mooy karaafiiru karaafilu bi ma lay wax dañuy wax ne man daa biha yakunu sarian ñaan rek tey boo doon ñaan ñaane ko rek ñaan gu gaaw a nangu lay doon waaye soo ko bindee nga def ko ci sa réew réew mi nga dëkk wala dëkk bi nga dëkk wala kër gi nga dëkk walla néeg bi nga dëkk ab noon du fa dugg màbbu kuy màbbu kuy màbbu tey walla hëdam hëdam mooy màbbu wala xaraab wala naar abadan ñu jël mbokk moomu mbokk mi asalaamaaleykum. allo ñu ngi waaw allo kilifa gi. waaw ah, jërëjëf. ah d' accord.